ñuy sant yàlla ci teew gi ñu teewaat fii ci poroxaan ndax maam jaaratullaahi maryaama buso radiallahu anha yàlla moo ko tànnal ay maam ak ay waajur yu sell ci meen ak ci géño ñépp boroomi diina lañu woon maam muhammadu buso ñu gën naan ko tabara busu ma tabara busu moo di waajuram bu góor maam Aysatu Mbàkke ñu naan ko maam Asta Waalo moo waajuram bu jigéen dund na mi ngi gane àddina mbusoobe jolof gën àddina fii ci poroxaan dund fanweeri at ak ñett mu tolloo ak dundub yonentu yàlla ali isa alayhi salaat ibnu mariama waaye dund gu barkeel la te bari njariñ ndax ba mu fi jógeek léegi mi ngi ci téeméeri at ak juróom fukk ak ñeent bés bu nekk barkeem di gën a ab liggéeyam di gën a feeñ nit ñi di ko gën a sopp boo delloo ci alxuraan dinga nga fa fekk aw turam ci bërëb yu bari yu wuute bokk na ca wa inni samaytuha maryaama loolu la yàlla waxoon aw turandoom boroom xam-xam yi ne mi ngi tekki ku amul sikk barke boobu moo nekk ci maam jaara mii mu nekkoon jaamu ko yàlla bu sell ku yiw la woon ku daan joxe ay alalam la woon ci jaami yàlla yi ku daan defit lépp lu baax lu lislaam digle maam jaaratulaay sëriñ basiiru mbakke waajuru sëriñ muntaxa nee na jigéen ju baax la jigéen ju fegu la boroom diine la woon ku bari woon ay julli la woon ku bari woon ay koor la woon bari woon ay koor nag mooy yemul ci weeru koor ku mënoon a joxe alalam ngir yàlla tey nag nit ñi ñi joxe seeni alal ngir yàlla ci moom maam jara ku mënoon a topp ndigalu sëriñam lool sëriñ Maam Mor Anta moo tax sëriñam Maam Mor Anta da ko gërëm ba wax ni maam jaara musuma mere musuma merlo loolu mooy wane ne dafa rafet lu doxinam doxinu sëriñam ba noppi rafetal aw doxinam moo tax lépp lu yàlla di may jigéen ju baax dajane na ci maam jaara yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne bépp jigéen bu nekk ci néegu sëy di muñ di jaamu yàlla di topp sa ndigalu borom kër ba yàlla may la fa ñetti doom mooy nekk sa baaraas sa diggante ak sawar maam jaara nag loolu lépp dal na ko ndax yàlla mayoon na ko ñeenti njaboot sëriñ maam Mor jaara magi mag tekki Cheikh Ahmad Bamba radiallahu taala anhu maam Abibulaay ak soxna Faati Mbakki Cheikh Ahmadou Bamba wax na ne yàlla jéggal na sama ñaari waajur jéggal na ma it man Cheikh Ahmadou Bamba lii rekk war naa tax bu sëriñ bi wootee ñépp war wuyu si rawatina bésu maam jaara nga xam ne ci moom la lépp dooree